il refuse catégoriquement. yéen a ko déggal seen bopp. cette opération d'intimidation. dañ lañ bëgg a def lan lan lañ bëgg. génnal li génnal li génnal li. wala génnal li. waaye. teewul. kii soo ko bëggee rey siñ kaw ngeen di jaar. la police qui tire Ousmane Sonko yéen yéen a ko gisoon door finalement soxal nañ ko masque bi c'est presque jàmma manque ñu gis wala ñu war a bañ a gis ñu nooy wala ñu bañ a nooy dañu ànd ak moom dem siège Ousmane Sonko ñu ngi ba tey ay grenade lacrymogène suñu kaw moytu leen si ginnaaw attention garde yi Il refuse de le mettre en sécurité et il refuse, il refuse catégoriquement. Le président refuse catégoriquement. lii kenn mës ko gis kenn mës ko gis ngay génn sa kër ñu ne doo génn nga wàcc dox ñu ne doo dox di la dóor ay gaz lacrymogène président gàddam ñaan na ko pour mettre ko en sécurité mais il ngeen moo ngi nekk ñoo ngi noonu lii su nekkul assassin tentative d'assassinat wax la ma lan la lan la lan ndax dañoo bëgg a rey président Ousmane Sonko fekkee dañ ko bëgg a rey nañ ñu wax wax dañ ngeen ko bàyyee quitte à marcher sur nos cadavres waaw le doit partir. Ah. Et ça, il est en conflit avec ses gardes du corps parce qu'il veut le mettre en sécurité. Lui, il refuse catégoriquement. La sécurité du président d'abord. Ah. La sécurité du président d'abord. on est seul ici avec les forces du désordre. Gars, hey, on, on, y va, hey, on y va. Gars, Nank, hey, Django, on y va. Quand on refuse catégoriquement d'écouter ses gardes du corps, il faut le mettre d'abord en sécurité et lui dit qu'il ira faire sa conférence de presse. Yéen a ko gisandoor fii yéen a ko déggandoor ñoo ngi fii c'était kër góor gi Ousmane Sonko son convoi était bloqué la police mu ne léegi comme que dañ ko bloqué di ko dóor ay grenades lacrymogènes yéen vous êtes témoins de l'histoire Vous êtes témoin de ce qui se passe aujourd'hui ici à Sénégal Gorgui. La police qui gaze Ousmane Sonko et ses gardes du corps pour le refuser d'aller au siège. En tout cas, ñun de mësuñu ne lui il était kenn mësuñu wax ne Ousmane Sonko a été assiégé. lan la ñu bëgg lan lan la ñu voté kii soo leen bëggee soo leen ko bëggee toroxal suñ kaw ngeen di jaar instant bi ba te il est en conflit avec ses gardes corps contre sa volonté il est en train d'être amené en sécurité ce qu'il refuse catégoriquement lan mooy ndeyu lii lii lan mooy ndeyu lii lan mooy ndeyu Ousmane Sonko naan dafay génn di dem conférence de presse ñu ko doo dem mu wàcc otom dox ñu ne ko forcé doo dem la dóor ay grenade lacrymogène te ñi ngeen di gis nii ñoom ñoo ko def ces policiers waaw donc contre sa volonté il a été en sécurité donc ñoo ngi nii la police qui va encore charger ñoo ngi fii cité Keur Gorgui gis ngeen dañoo dóor la lacrymogène à bout portant waaye lool taxul ñu ragal loolu taxul ñu ragal loolu taxul ñu ragal gis ngeen dafa doon bëggoon ñëw dóor grenade lacrymogène far dóor na ko dóor na ko mooy waaye di dëgg lii mooy nekk këx këx weesuwul lii wante li ngeen bëgg doo leen ko am li ngeen bëgg doo leen ko am li ngeen bëgg doo leen am suñu kaw vous aurez beau gazé beau maltraité wante nous ne céderons allez chercher les voleurs les farbangom donc il vise à bout portant yéen a seen bopp il vise à bout portant il vise à bout portant dañuy dee rek war nañ leen bàyyi suñu bopp plutôt que mourir Ousmane Sonko qui toujours discute avec ses Ces gardes qui veulent mettre en sécurité de force. Donc, ils l'ont convaincu de rentrer. Alors, dafa mel ni. Maanaam naqari na lool lool lool lool. Donc, ils ont barré partout. Gis ngeen fële na la ñuy jaar aussi. Dañ ko barré. Voilà, dans le Sénégal où nous sommes aujourd'hui, on ne peut de dictature rampante. La dictature, elle est debout, elle court. li fi xew yéen a ko gis seen bopp kenn nettiwul leen ko Ousmane Sonko a été gazé par les policiers avec ses gardes du Donc ils l'ont convaincu de rentrer. Là, on est en route pour, euh, pour euh, effectivement rentrer à la maison. Mais il le fait à contre-cœur, vous pouvez le voir sur son visage. Mais c'est pour sa sécurité, il refuse de porter encore un masque. Espérons que la police va nous laisser sortir. On ne pourra plus de force de l'ordre, mais force du désordre. Yo, yo, yo. Parce que tout a été engendré par ces gens et le supérieur. Donc, retour à la case départ, Ousmane Sonko. kenn amul explication am Donc nous sommes en train de rentrer à, à la maison parce que là on est obligé, c'est pour sa sécurité. gars yi comme garde yi li ñuy wax la sécurité du président d'abord il rentre mais à contre-cœur nous avons besoin de lui en bonne santé donc force et honneur à ces gardes rapprochés qui font passer le, la sécurité du président avant tout donc ils sont toujours derrière nous avec leurs fusils c'est très grave li xew fii tay c'est très grave te ñi ñu war a aar ñoom ñoo ñu jéem a toroxal ñi ñu war a aar ñoo ñu jéem a toroxal. kenn mënuñu tere protéger ce projet kenn. qu'importe les sacrifices à faire, qu'importe les pas à poser waaye mënoo lañ ne tere ci 2024 incha allah ñu yóbbu ko palais présidentiel par force li yàlla def si xol yi kenn mënu ci dara et votre entreprise d'intimidation et de diabolisation ne passera jamais jamais en tout cas cet homme là vous n'allez vous n'allez pas l'arrêter fekkee da ngeen soxla soxla ba kanam de ba ngeen jaar suñu kaw ba pare ndax suñu yaakaar dañ koo teg ci moom loin de faire le culte de la personnalité waaye kii dañu tànn ngir mu nekk suñu président de la république incha allahu rabbi donc nous sommes rentrés à la maison euh, je coupe le live rendez-vous ci kanam voilà ñoo ngi di diwaanu cité kër góor gi dañoo téye woon oto Ousmane Sonko ak convoi bi dafa waroon dem conférence de presse ñu ne ko doo génn waaw il est sorti marché accompagné de ses gardes du corps koy gis ni en direct police nekk neeri ñu topp si ginnaaw bloqué convoi bi moom moo ngi ànd ak ses gardes rapprochés di dox fas yéene dem siège def conférence de presse bi comme ni mu ko fas yéene woon def donc la police poursuit son opération d'intimidation. donc Ousmane Sonko mu ngi nii di dem siège à pied parce que son convoi était bloqué par la police qui a encore bloqué le chemin. Il doit tout filmer. li moo xew si kër góor gi. il tire sur Ousmane Sonko. nee nañ du génn këram du génn koñam. loolu la suñu bakkan lañ ci teg lu ñu bëgg ñu dem lu ñu bëgg rek ñu dem lu ñu bëgg rek ñu dem président solal masque ñu dem solal masque ñu dem s'il vous plaît solal ko masque bi eh solal ko masque bi solal ko ko masque bi c'est la police encore qui charge Ousmane Sonko gis ngeen ni ñu dooree grenade lacrymogène yi ko déggal seen bopp cette opération d'intimidation dañ lañ bëgg a def lan lan lañ bëgg. génnal li génnal li génnal li. c'est irrespirable. waaye kii soo leen ko bëggee rey kaw ngeen di la police qui tire Ousmane yéen yéen a ko gisandoor finalement soxla nañ gis wala ñu war a gis bañ gis ñu nooy wala ñu bañ a nooy dañu ànd ak moom dem siège Ousmane Sonko ñu ngi ba tey ay grenade lacrymogène suñu kaw moytu leen si ginnaaw attention euh, garde yi ils refusent de le mettre en sécurité et ils refusent refuse catégoriquement. waaw le président refuse catégoriquement. lii kenn mës ko gis kenn mës ko gis ngay génn sa kër ñu ne doo génn nga wàcc dox ñu ne doo dox di la dóor ay gaz lacrymogène. président gàddam ñaan na ko pour mettre ko en sécurité mais il refuse il refuse catégoriquement gis ngeen moo ngi nekk ñoo ngi noonu. lii su nekkul tentative d'assassinat wax leen ma lan la lan la lan ndax dañoo bëgg a rey président son Sonko fekkee dañ ko bëgg a rey nañ ñu wax man dañu leen ko bàyyee quitte à marcher sur nos cadavres waaw le président refuse il dit jamais il va partir ah instant bi il est en conflit avec ses gardes du corps parce qu'il en sécurité lui il refuse catégoriquement waaw gars la sécurité du président d' abord moom nee na il va partir donc on est seul ici avec les forces du désordre gars on on y va eh on y va gars nank eh tempo on y va Ousmane Sonko refuse di d'écouter ses gardes du corps qui veulent le mettre d'abord en sécurité et lui dit qu'il ira faire sa conférence de presse. yéen a ko gisee Ndor fii yéen a ko dégg Ndor ñoo ngi fii c'était kër góor gi Ousmane Sonko son convoi a été bloqué par la police mu ne léegi comme que dañu ko bloqué mu di ko dóor ay grenades lacrymogènes yéen vous êtes témoins de l'histoire Vous êtes témoin de ce qui se passe aujourd'hui ici à Sénégal La police qui gaze Ousmane Sonko et ses gardes du corps pour le refuser d'aller au siège. En tout cas, ñun de ne lui il kenn mësuñu wax ne Ousmane Sonko a été assiégé. Police lan la ñu wante kii soo leen bëggee soo leen ko bëggee toroxal suñ kaw ngeen di jaar instant bi ba te il est en conflit avec ses gardes corps contre sa volonté il est en train d'être amené en sécurité ce qu'il refuse catégoriquement lan mooy ndeyu lii lii lan mooy ndeyu lii lan mooy ndeyu Ousmane Sonko naan dafay génn di dem conférence de presse ñu ne ko doo dem mu wàcc otom dox ñu ne ko forcé doo dem di la dóor ay grenade lacrymogène te ñi ngeen di gis nii ñoom ñoo ko def ces policiers waaw donc contre sa volonté il a été amené en sécurité donc ñoo ngi nii la police qui va encore charger ñoo ngi fii cité Keur Gorgui gis ngeen gi dóor grenade lacrymogène à bout portant waaye lool taxul ñu ragal loolu taxul ñu ragal loolu taxul ñu ragal gis ngeen dafa doon bëgg a ñëw dóor grenade lacrymogène fa dóor na ko dóor na ko son frère Darou lii mooy waaye di dëgg lii mooy nekk këx këx weesuwul lii wante li ngeen bëgg doo leen ko li ngeen bëgg doo leen ko am li ngeen bëgg doo leen ko am suñu kaw vous aurez beau gazé beau maltraité wante nous ne céderons pas donc il vise à bout portant yéen a gisee seen bopp oh, oh, oh. il vise à bout portant à bout portant. dañuy dee rek wala nañ leen bàyyi suñu bopp. plutôt que mourir. Ousmane Sonko qui toujours discute avec ses gardes du corps. Ces gardes qui veulent le mettre en sécurité de force. Donc ils l'ont convaincu de rentrer. Alors dafa mel ni. xolam naqari na lool lool lool lool. ils ont donc ils ont barré partout gis ngeen fële na la ñuy jaar aussi dañ ko barré ça. Voilà, dans le Sénégal où nous aujourd'hui, on peut plus parler de dictature rampante. La dictature, elle est debout, elle court. li fi xew yéen a ko gis seen bopp kenn nettiwul ko a été gazé par les policiers avec ses gardes Donc ils l'ont convaincu de rentrer. Là on est en route pour, euh, pour euh, effectivement rentrer à la maison. Mais il le fait à contre-cœur, vous pouvez le voir sur son visage. Mais c'est pour sa sécurité, il refuse de porter encore un masque. Espérons que cette fois-ci la police va nous laisser sortir. On pourra plus parler de force de l'ordre, mais force du désordre. Parce que tout ce désordre a été engendré par ces gens et le supérieur. Donc, retour à la case départ, Ousmane Sonko. lii kenn amul explication am donc nous sommes en train de rentrer à à la maison parce que là on